ma jokkuñu waaja daa way ngeen ji yónneen ba fal ko muy xurxur boroomam ma yónneen ba yónneen fal ko muy xut boroomam di tax way way walaf tama di diyaaram dama nar jaay jàngul xam boroomam makkan ko te way ko ndaxte mu dolli may may gewal sa ñaare luy kañ boroom man it li fi jaloore te suñu fi ndam ndam wa xar baax ya tax ngeen xam boromam te xëj ya yàlla fal xam nañ maqaamam ca xar baax ya ca ma ya xam boromam ca wàllu ya ca xaw xaw ca fa diwaan te xutbu yaa ak ak ña daawee ak boromam ña xam yàlla ña xam yonen ca baawoon ba tey kenn jaaroo fa fa jaar boromam ña xam yàlla ña xam yonen ca baawoon ba tey kenn jaaroo fa mu jaar boromam te wax ji moo ko wax ba konoon nga yóbboo ko digal wax ji moo juyoo boroomam ci géej ga la labe yàlla ba fekk muy géej mu tànk celeen xëy muy naan boroomam ci géej ga la dàqe seytaani ki gaayam bu ñuy maaj buy taxaw faratay boromam ci géej ga la Bamba tijjee ndàmbi xam-xam ba faf faf ali way xalimam boromam ba ak ci yàlla ak ci ngeen ji yoon nen ñu soppi ko soppi lépp lépp muy boromam saxal ko fee ci ay at at di boole dëgg julleeg wéetal boromam ba fam seey ni suuf kër far ci yoneen di moom muy moom ci baatin cay boromam ñu bokk ko fol tofol ko gërëmul fa ëppun ñu wamatu yi jox ko mu jox boromam di kenn ñëpp xam xam fee ci baatin tubaab ya di bañ sëriñ sa di yem boroomam mu fab di bi janti ci jibbu duniya di taalif téere sellal boroomam malaaka seere pal ga moom fa diwaan muy fal ay xut yi dee boroom bi kun ci lépp lu sopp boromam mu làq ngërëm ci zaahir ak baatin maqaamaam faw xam boolem luñ sóobu ni mes bu génnee xam-xam boromam ku sóobu tey weyta aw yoonam wa feesal ci ay leeram ba faf di duyal moromam ku sóobu dex xam ndox ndox bi yeewul te wattu ndox ndox lewet na te wex ca biiram ku sàggan sànku faaw talab na doo duy te doo set setal doo xam boroomam melay bàmbaay gi waaju xam na dëggoo roy roy lu jikkoom ya moo xam boromam di jox aji laaj di dimbale ay dëkkaaleem du tooñ te ku tooñ jéggal ngir boromam di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal safoo ku ko soosul kuy mooy boromam di faj aajoo ko xam ko di seexal di génne guru ci toskare jox boromam di fekk ku ñëpp ay cosaanam mu fal ko ba ñëpp faale ko moo boromam di fekk ku mel ni man jàngan liggéeyul mu seexal sol ko xam-xam mook boroomam di mu dof bu tilim firul baa mu fóot ba mu set tofal mbooloom boroom melay kaw yaat melay biiram du digle lu bon du diglu kulul du mooy ngir kii du bew ngir mbég lu rëy rëy du bëgg du bañ du faale ku boroom du jàq rët du jaaxle du fàtte yoon nen te mas la tawat loo xew xew dul boroomam du daw ay noon du yox yox ngir bi xem nit nu sukkandikoo ci mbambam ku dul boroom lu mbir rëy rëy da koy faral falle ak gëm du yokki du taw di mu faral boroom du ëpp ba tax wàññi jaamu yàllaam du tiis ba mu tax mu war faratay boroomam du déggu noot mbaab kàbbante teewul lu taw taw taw ak lu liw liw liw liw cay boroomam du tab jabatiim duute musul di maamam du gàppuru bis du wéeru jullil boromam du yeexal xel man waxtu tamas la fay da koy wax wax man tar koy boromam du ñàkk ma tax bu bodd kuréel ya koy laaj du dencee alal lu dul téerey boromam du dox di dox ju ki dëkkaaleem ci ay kër weetaa ma nga ca yotel ba boromam du dox di nelaw ci ay ay lu guddi cey cey du lekk ba rek day mas ngir di far ay di gàddu tiis ci aw nit di sotti may di jël sañ-sañ boroomam bu nattu jogaa bu ci jàng njabootam mu daar daar loo ngir ànd ak boroomam yaram ndaw ndaw xamal na leen yoonu baatin teral na mu mag ba jébbal leen boroomam yëfal nay bor tabax nay kër ci xamal na ya sampaan ngir boroomam te taal na taal bu dul fay duniya masiifu la gis kemam cey moom boromam dëdër ba ne kekk nooy ba ni nem ci wet te am jàmbaar bu tar ragal boromam wayaf ba ni toy bii si sa boroomam sawar telefog te yaatu te xër xër te am lu mu am jox boroom rafet jëf saf xorom te reewul bari teggin ci ku mu gis ngir boroomam du xejj ci seen du ay bokkam du jaam ku ñu mu teral diggal la nga xam boroomam du boddi du ñax du jànni du xotti saakir dalay yaatal ëfal la nga mel ni doomam du matti du njëw du xool warul te siisul du rum mi du mer du xul ci lu dul boroomam du xas du

boromam fu ni raasi si waaju mel ni mbër woyof na ca kaw te diis na ca biir boromam fu ni raaseeti jant bu dem ba njaloor tey leeral yëpp gox di kenn boromam fu ni raaseeti kom bu ñu gaa du geesoo day romb dërëm ya jëm ca mbirum boromam fu ni raaseeti waa joojoo xam-xam buy way araf mu def aras di kenn boromam fu ni raaseeti muy way arafu dafa arasite mbir boroomam fu ne raasi kuy fam alxuraan bi di def di taax di taalif ngir boroomam fu ne raay seeti kuy gis ahlu badirin di ànd ak ñoom ci teyaale boroomam fu ne raay seeti waajoo xam ni fu mu teew ku wopp wa faj ku dee mu yëgal boroomam ku bañ bii xuy xul bay raay seeti boroomam du gis mu ni mel ji jamonoy boroomam gaaye nun ca baawan te xan xan nuy jubit du ci ñëw moroomam ku weddi ba tax nga bëgg ne maay moroom na def li mu def te wax li mu wax te dox li mu dox ci réew Gabon Congo ci ay noonam te mel ni say xiib wa ahmadu ndumbe ak làmp boroomam te sàkku ko mel ni seyxi abdurahmaan judd ci mbàkke moo la xalaxal boroomam te sàkku ko làq làq leeg seyxi muxtaar ka dem ba siyaara yonent moo ki doomam te seexal kem li Seyxi Bamba seexal te selal seeni xol ba ñu xam boroomam te sàkkal leen mbooloo faw ñuy jëf te tàggat leen ba duñ mën a mooy boroomam te kat na saxal liggéeyal gën gën te bum tere muy taxaw faratay boroomam te dootu nelaw te day daw soxna yam di daw seytaane tey weet ak boroomam te bum yokkat te bum jëf te bum njistal ci na ragal boroomam te bum di ngat sëriñ si te bum ka koy gottil moroomam te bum xas nit te jëw muram baajit te bum fen bum dokku mbokk moroomam te day xam xóoti xol di xam baati nit nit di saafara rek di xala boroomam te bum digle kaay ci wàllu bakkan di woote ca kaw kaw biir ba gisul boroomam li ngay lim lim doy na yow Musaa taxawul ba tey jotoo doo lu mat sa kay boromam ku dégg ñu jàng way wi nang ma ñaanal sax fi baxam xarom te def géwalam bu koy way fee ba ba may nee te wax ju ma wax mu saf ko te saf boroom mu bëgg di mbër mais lay bamba ngi seetal ku mel nii bëgg di mbër mais lay bamba ngi seetal ku mel nii bëgg di mbër mais lay bamba ngi seetal ku mel ni mooy yoonu yoonu boromam ku bëgg dimbal ma lay bàmbaay gi seetal ku mel ni mooy yoonu yoonu